jaajëfu tey jaajëfu tey sama gaay yi Mister Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo bu ndaw ci Ousmane Tounkara démb dañoo gis mu def benn video di attaqué Thier bi nga xam ne Pape Alé Niang daf kaa invité Ousmane Tounkara nag wax naa ay wax yu xaw a doy ba ku ku deful sax nga dafa xaw a mere Pape Alé tuuti wala daf ko parce que moom nee na Thier dafa utiliser Pape donc selon Ousmane Toukara, Pape Alé s'est peut-être fait piéger par Thiers parce que Pape Alé n'aurait dû n'aurait pas dû interviewer um, Thiers pour lui donner une plateforme pour venir étaler ses mensonges contre Yanamar. mais kilifa Tounkara aussi dañ ko gis mu gën a dal ci Thier wax ko ne moom dafa am ay xibaar yu doy waar yoo xam ne jabaru Thier ci boppam moo ko woo wax ko ne Thier sàcc la mu ne Thier sa doom ci boppam sa taw bu jigéen woo ne ma ne nga sàcc la Tounkara fan yi dañoo gis ne yaram dafa tàng mi ngi doon avertir aussi ci activiste yoo xam ne dañuy liggéey ak Macky Sall dañuy yaakaar ne ñoom ñun la ñuy liggéeyal patriote yi

de voir, euh, euh, comment dirais-je, Tonkara faire une réflexion sur Pape Allais. Parce que moi, je me dis que Pape Allais, c'est un grand journaliste qui fait son travail comme il faut, mais bien sûr, de temps en temps, il, commet des erreurs, comme tout le monde. Mais moi, je ne pense pas que ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Pape Allais Niang, wax, euh, Thier, nous interviewer. Pour moi, c'est erreur xëy na gouvernement bi dañu bëggone utiliser Pape Alé mais Pape Alé quand même il n'est pas né de la dernière pluie Pape Alé du amateur tunkara Pape Alé xamna lu muy def man pour man Pape Alé limu wo cher Thier wax ak ah yaqulul dara Sonko yaqulul dara euh, euh, euh, Tunk kii waa Y'en au contraire au contraire ndax Pape Alé laaj nako question yim ko ron laaj te ñëpp gis nañu ci biir interview même tunkara sax wax nako

contre n'est-ce pas le complot sur Yanamar. parce que Thier fu mu toog di wax maa ngi bu doon bu doon damaa def lu bon kenn du ma jàpp Pape la Simon yow vidéo mais man première partie bi je bëgg wax Ousmane Tonkara, il faut que mu def très attention bu mu topp ba ba ba di wax bu ko nit déggee dafay ne Pape Alé dañ kaa utiliser Pape allé. Quel monde ko utiliser Ton cara nga war comprendre ne Pape Alé c'est un journaliste professionnel yow sa bopp Pape Alé ñëw na fii ba New York xam nga en comment dirais-je interviewé la jàppale si sa combat kon bul top sa mère. wala sa déception wala nga yaakaar ne waa perdre. dañu mën a utiliser allé, Alé allé. Quel monde qu'on ko utiliser monde qu'on ko utiliser kon cara ferme bi mu utiliser xëy na daf ko wax nii rek xëy na daf ko wax nii rek man bugguma bugguma euh, euh, euh, mais man man maay monsieur Cheikh man su ma gisee loo xam ne dama ci war wax dama ciy wax xëy na Tunkara dina génn mu expliquer parce que man ñun bëgguñu digganteem ak Pape Alé Niang yàqu parce que Pape Alé dañ ko soxla dañu soxla Tunkara n'est-ce pas on a besoin de Pape Alé on a besoin de de Tunkara léegi li ñu bëgg wax rek mooy Pape Alé kenn mënu ko utiliser kenn mënu ko utiliser bu leen fàtte ne affaire Ndeye Khady Ndiaye bi ah moom moo interviewé Ndeye Khady Ndiaye affaire Adji Sarr bi bu dul woon Pape Niang Sonko dina am problème Pape Alé mo fexé ba am PV yi xam nga daal di ko tasaare yàq seen deal Pape Alé vraiment lolu lolu mën nañu wax ne say say say say mooy euh, euh, euh investigation de l' année nu mu def ba am PV yi yàq dilu Macky Sall kon ñun dañu soxla Pape Alé tan yi gis ngeen lu muy wax Sonko dañ ko bëgg ray bu ba mu nekkee Gambie gis nga lu muy wax dañ ko bëgg a rey ko éliminer ah, les généraux là wala wala les forces de sécurité ils ont promis la peau de Sonko à Macky Sall mooy Manam. wax nañu Macky dig nañu Macky ne dinañu fexel Sonko dañ ko faagaagal buñ ko mënee ray, dañ ko ray. Kérok dañ ko doon dóor bal perdu loolu loli Pape Alé wax kon papa Alé waruñu am xel ñaar ci mom que ni muy defee liggéeyam baaxul mënu ko utiliser. au contraire limu def daf ñoo arranger parce que daf ñu wan né tiers gouvernement bi moko yoni ci Pape Alé ngir yak caat ngir yàq yaanaamaar xam nga parce que mi ngi naan caat ak yaanaamaar caat ci boppam dafa bokk ci yëf yi bu dul woon moom dañu ndaroon jàpp caat jour boobu moom moo wax caat yoonam nekku ci waaye moom nee na caat moo ko présenté Simon indi ko ba këram xam nga bëgg takkal caat kon Papa Alé vraiment li mu def rafet na waaw léegi Tounkara xëy na dafa ni mu waxee ni mu waxee xëy na daf meram dafa yaakaar ne Papa Alé warul warul mën a recevoir Euh, euh, kilifa man loolu laa kii euh, man loolu laa jàpp Tounkara ni mu waxee pour moom daal Pape Alé waru recevoir chair. Pape Alé day tok di wax mom ligueul pour Sonko ligueul pour kenn kenn munu ko dicter kenn munu ko wax ni li ngay def li ngay def comprendre kon xeyna tunkara il a mal parlé Wa man fii Tounkara lay lay laay wax ni tunkara bul waxati loolu bul waxati ni dañoo utiliser Pape Alé en tout cas ci fi fi mom kenn utiliser wu ko léegi lan la tunkara wax ci chair. gars yi may leen ma ma génne notti parce que Tunkara nee na Thier yow sa sa doom sa bopp woo na ma sa jabar woo na ma te li ñu wax mooy ne yow sàcc nga Tunkara nee na ko sa doom nee na sàcc nga mu nii may liir ah sa doom nee na sàcc nga sa jabar ci boppam nee na sàcc nga danga nga dem kër Eliman Lam ba nga demee kër Eliman Lam yaa fa sàcc yow nga nan ci ben atelier nga dem demo ci ben atelier keur eliman Lam nga dem ba nga demé nga sacc fa sa jabar ci bopum waxna lolu néna sa frère Tunkara néna ko sa frère gars ngeen balm sama noti ak sama gang sa sa frère bi nekk Kaolack sacc la ah sa jabar sa dom, sa taaw bu jigéen nee na nga sa taaw bu jigéen Macky Sall lay andal xam nga Tunkara nee néna tay Tunkara néna dina génne ay preuve yu wone ay compte bancaire yu wone ay ministre defna ministre lo wax en tout cas kilifa bu mak bo xamne dafa bok ci affaire visa bi lolou yep wax na dina guen ay preuve compte bancaire document wa parce que mom limu wax nee na day dem ci keur jambour yi satch am ay affaire yu mu am soit mu jël sa téléphone am lu mu fu gis dila wo nak nan la boma joxul khalis dina guen li wala dina def lolou lañuy tuddé chantage waaw lutax nga bàyyi téléphone iliman Lam ci kaw lalba ba ngay satch parce que xamne na bo satché téléphone dinañ la mëna localiser xeyna lolou tax mu bàyyi fa téléphone parce que tamit du ngaka waaw lan la waxate encore euh, euh, waaw wax na ko sa taaw bu jigéen wax na affaire euh, sa doom en tout cas Tonkara tey il nous a promis qu'il va faire d'autres révélations Tonkara di nous dit qu'il va faire fera d'autres révélations sur son live d'aujourd'hui mais ci beneen live dama gis Tonkara aussi mu attaqué pour man Assane Diouf la attaqué parce que mu ngi naan nañu def attention parce que temps yi banta maa ngi leen di avertir Assane Diouf àndul ak Pastef Assane Diouf Ablaye Wade la àndal bëgg nag mbubuwoo turu Sonko fu waxee rek tagg Ablaye Wade ba mu ba ba mu baax tagg Karim Wade tagg seen seen coalition bugguma sax tudd seen coalition parce que ñun benn coalition la ñu xam mooy yeewu askan bi Assane Diouf def live jël buzz bi ñëpp di di wax Ablaye Wade lii di wax coalition Ablaye Wade ba pare ñambaas fa benn Sonko parce que xam ne ne waa Sonko rek ku koy seetaan loolu nag il ñu bàyyi ci xel moo tax Tounkara tamit dafa mel ne gis na loolu moo tax mu ne dafa am ay yoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéey parce que ñëpp xam nañu ne moom moom mooy Gloria tey rek dégg naa ñu ne këru këru point e bi Macky Sall moo joxe xaalis pour ñu defaraat ko delloo ko ko mooy kër bi Macky Sall nangu woon. comprendre léegi Assane Diouf pour man Tounkara Assane Diouf lay waxal parce que mi ngi naan est-ce que moom activiste bi acti képp kuy activiste gi xeex Sénégal waroo fi nekk naan da ngay post pour nekk ay maire wala yooyu te fii kenn lañ gis mu nekk maire. mu bëgg nekk maire ci activiste yi muy Assane Diouf kon dañ suñu day ñaaw ne xëy Assane Diouf lay waxal. voilà loolu nag dama gars yi dama bëgg ngeen bàyyi ci xel Assane Diouf moo fi wax ne numéro un Assane Diouf moo aussi seen TV Nouvelan mu ne mu ne askan bi du yeewi dara xas ñu ba ñu rab bu am tour bu bëggee am ay vues defal buzz campagne euh, euh, nu mu tuddati euh, Ablaye Wade tout sauf Macky tout sauf Macky wootal leen Ablaye Wade wala ngeen wootal Sonko wala nga loolu ñun loolu bëgguñu ko dañoo bëgg turu Ousmane Sonko nga génne ko sa gémmiñ parce que ñun xam nañ ne da ñoo bëgg utiliser da bëgg waa Pastef votal Ablaye Wade te loolu duñ ko def ndax votal Ablaye Wade mooy votal Macky Sall voilà gars yi live bi tey tey loolu laa leen bëggoon a ci ci live bi euh, Tunkara nag nee na bu soobee yàlla dina gën a génn def live gën gën wax mais Tunkara dañ koy ñaan rek mu dal te mu xool ni muy waxee buy wax ak Pape Alé parce que mu war a xool seen diggante digganteem ak diggante Pape Alé fu mu jaar ndax moom ba mu nekkee ci ay tolof tolof xamuñu ndax dañoo fay Pape Alé xaalis wala fay ñu ko xaalis waaye Pape Alé jug juge fii ñëw ba ñëw ba ba ba New York jàppale la kon tey booy utilise booy wax naan Pape Alé dañ ko utiliser loolu manque de de de kii la quoi parce que yooyu loolu dafa mel ne da nga yaakaar ne Pape Alé mënul liggéeyam waaw xëy na nag xëy na ni mu waxee la xëy na dina génn mu rectifier on espère. on espère que Pape Alé du ko jélé dara xëy Tunkara dafa dafa mer rek xam nga waaw mais ñun ñu ngi ñaan Pape Alé bu fekkee ne sax xëy na sax Pape Alé moom du dégg ko waaw mais <laughs> mais man ma mr Shake man lepp luma gis lo xamné day yak suñu combat dina ci jóg ma wax ko parce que Tunkara ak Pape Alé ñom ñoy numéro 1 fi mu nekk ni Tunkara ci walam moy numéro 1 Pape Alé ci walam moy numéro 1 te ñun ñaan ñi dañ leen soxla pour defar Sénégal gaay yi laaj leen partager leen abonné leen de leen bés cloche de notification comme ça ça m'a live euh, tay dama ko bëgg tel commencé 6 heures heure Sénégal ngén ngén féké ko ngén jot à tout à l'heure merci vive le Sénégal vive le président Ousmane Sonko.